ils ont fait, j'ai dit, oh, on, maa ngi si son sa bopp ils ont pratiquement fait la moitié. ak ak ak Macky Sall. Macky def presque ans Wade def ans c'est 24 heures. ans. Mhm. qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne prépare pas un autre donc donc yow génnewuloo Macky Sall ci ci euh, ci euh, le libéralisme de Wad. non non euh, famille libérale bi la regroupé d'accord moom la regroupé même Idi mii kii di tout ah. à tard il va faire des concessions. Ah, donc, man, je on fait peut-être un euh, euh, une petite euh, étude, est-ce que nous, parce que a on a l'impression que Idriss comme tu est-ce que tu pas une même dynamique, même si c'est quelque part un peu tu, est-ce que nous, voilà, on, on est en train de baliser un autre chemin parce que dernièrement, on a vu beaucoup de sorties de Sonko, mhm. des autres opposants sur l'IFI. Mhm. c'est actualité. qualité il n'y a que lui qui sort. Donc, c'est ça qu'on le connaissait du temps de mhm. quelqu'un qui avait euh, qui, qui avait toujours son mot à dire, qui en disait Son silence voilà booy xool géopolitique bi actuellement au Sénégal le seul opposant c'est Ousmane Sonko. te pourtant il était démocratie encouragé aussi il faut qu'il ait une nga woon ak ak ak euh, ak euh, euh, élection non réalité élection dafay tax xam nga ay rapprochement war di am ay am xam ne ku si nekk da ngay dem jéem xol loolu fan la sa intérêt ne mm. parce que en politique comme il y a que des intérêts. Mhm. il y a que des intérêts parfois c'est intérêt sax des, dem. mais mais yow da nga gis ne daal euh, rapprochement. non famille ak le silence de Wade c'est dans le sillage. Euh, du euh, donc du rapprochement. Ah, mais également de la famille libérale de la famille libérale. il faut mu benn pôle bu am doole. ñoom loolu la ñuy togg parce que nous les patriotes là dañuy. Wow. on a pas les négliger quoi on a l'impression qu'ils sont en train donc de. de grandir de grandir et puis lu baax. Mhm bokay liguey liggéey il faut mu am ni ngay aw am ba pare opposition une opposition pour am ci réew alors si si on euh, un petit glissement ñeu ci euh, les actualités gisoon nañu fi la dernière fois l'affaire donc euh, wuñu ci quelque part également ñu gisaat fi xaalis bi nga xamne mom lañ doon reprocher mom sonku doon euh des députés yi loolu sax wa loolu ci sax tam ne moom bi xaalis bi nga xam ne Mamour Diallo euh, moom Sonko mu ngi ko doon voilà donc affaire titre foncier bi euh, toutes ces actualités euh, ba ci mujj mooy Bougazeli voilà Seydina Fall <laughs> Bougazeli lu tolloog presque trente deux milliards faux billets c'est trop bah, ça fait mal hein, voilà ça fait mal du moment qu'on a voté pour la rupture et la bonne gouvernance le parti la patrie avant le, le parti voilà mais on a l'impression qu'on est dañu ah. delluwaat inverser la est-ce que c'est pas pire parce qu'il faut oser le dire selon yow lan est tax nga pire non scandale il On arrêter arrêté de passer au régime bi ñuy régime mhm. c'était passé à la fin de de de son régime ay scandale rek malgré la bonne volonté de Macky entre guillemets euh, derrière on a l'impression que son entourage presque ressemble à celui de Wade du temps je ne dirais pas c'est moins neuf mais mais c'est pratiquement la même chose <laughs> man gis nga amu lu may regal gis nga parce que booy xool ñu pas les élections man j'ai fait une sortie sur le net caricature ñi nga xam ne ñoo ne woon àndax wàdd di ko wax yow la yow la góor gi ci la constance mm. ñoom ñoo demaat si fële ñoo demaat si fële si Macky ñoo ko gën a wër ñoom la nommé waat je ne vais pas de nom li tax Il n'y a pas de, changement de paradigme. non, non, rien n'a changé. Je suis dessus, sincèrement. En tant que Sénégalais, je me disais que si les Sénégalais, ils ont les demandes sociales, ils ont besoin le régime, ils ont dit la rupture mm-hmm. la bonne gouvernance la patrie avant le parti alors que li mu wax yooyu yëpp gisuñu si dara mhm. il faut oser le dire gisuñu ci dara mhm. parti bi tay parti am la gëna fonk que yenen institution mais mais mais on a l'impression que en fait bon suñu confrère de la presse wax nañ ne bi ko annoncé à la nouvelle ne jëli ji lañu euh, Bougazeli voilà il était presque surpris est-ce que euh, gis nga ne yooyu surprise la voilà pour mun na donc euh, c'est juste un effet donc d'instant. mon gars souvent à la presse dañuy wax naa il est dur. wala demoon nañ ba tuddee que ñang je trouve que du du ah. parce que les gens là yi am ni yi ngay wax l'affaire Petrotim mamou Diallo Bougazelli bon te ba légui on a l'impression que y a une justice à deux vitesses man dama koy am déjà parce que parce qu'on on a vu l'affaire Khalifa Sall accélération processus

Karim avec. C'est-à-dire le, le, simple citoyen. Le parce simple que bi, bi, vous avez fragrant. Combien de citoyens Même so, si on est député, il n'y a plus de. Euh, Affaire de phobie, il y a une fille qui suite accusée, te donne une casse, nous continuer pour enquêter. Il y a des artistes surtout, il phobie. Et puis, phobie. Alors, le, pauvre Sénégalais, comme tu dis, comme Managio, voilà, donc tu as défendu des délits, il y a des coffrets, des kii ah, procès yi des fois mën na mën na yàgg bala ñuy xol ce dossier sax da ngay yàgg lolo tax le rëbës bari lolo tax ngay wax injustice justice à deux vitesses waaw justice bi dañ na comme comme am ndey ma amul ndey fi am parce que rien n'a changé pourtant on a dit que euh, ñun suñu institution euh, euh, trilogie bi moy ben le pouvoir exécutif moom mooy exécuté le pouvoir législatif yor lépp lu jëm ci wàllum woteeb loi ak yeneen mbir

ñom ñu tek fa ki leen ki ki ñu mhm. mais ba conseil constitutionnel c'est le président qui nomme pratiquement. donc conséquence bi moyen, chaque fois bu quelqu'un qui est très proche du régime sous fait une erreur. Mhm. su fait donc un délit. voilà on le protège Mais ça c'est pas bon je suis déçu parce que rien n'a changé. Mhm. quand on parle de bonne gouvernance il y a la bokk justice. assemblée nationale.

ki nga àndal da koy wax dëgg nangu mu lay wax dëgg tant que ñun daw ñu noonu rek suñu politique toujours ni lay mel. alors derrière on a l'impression que également il y a une sorte de passivité euh, populaire puisque l'opinion wow. aujourd'hui on est en train d'emmagasiner de consommer et de, de recevoir et d'encaisser li nga qui ne jamono bii mooy mooy am euh, au courant euh, gisoon nañu ko fi du temps de voir de may ko woon donc fu mu naa nakam mais aujourd'hui on a l'impression il y a une sorte de possibilité c'est vrai personne ne veut que le pays mm-hmm. s'embrasse derrière on a l'impression qu'à part toute la dernière sortie de, euh, du, du, euh, du, forum civil, avec hein, donc, là, donc, ah, le, mouvement de la, de la société civile, etc. On a l'impression également, il y a... C'est nini là, quoi. Parce que Sénégalais, ils ont maturité. Maturité, maturité le d'un côté, et on dit que tout peuple mérite son dirigeant. Parce ah. que côté critique, je comprendre. Sénégalais, ils ont une maturité. ñoo ko nangu ñoo nangu au début moom ni mu la gisee la lay mais nag il faut faire ñu xaw si def tuuti attention parce que Sénégal dafa doon Sénégal dafa doon peuple boo xam ne bu ñu paree rek pare nañ dañuy si dal na waat dal na waat ñu ngi dal na waat dañ doon wax naa góor gi bàyyi leen góor gi mu liggéey ah, bàyyi leen góor gi mu liggéey mm. mais am na bi fa yeggee moom man mi doon le premier wadis man ken jiituma assemblée ñi teewoon banderole yi 23 juin si laa bokk et lui pourtant nag il ne nous faut plus ay 23 juin parce que. Euh, non je ne pense pas que gars yi dinañ arabe au moins réglé un problème ça a permis au moins donc mais avec savoir que le peuple peut se révéler wax si troisième mandat mën nañ fa yeggaat. foofu laa doon pare jëm léegi nii. que malheureusement man man d'accord. il est impensable sax ñuy wax un troisième mandat. mais il est fort probable que cela soit. juridiquement xam nga. Euh, parce que rien ne l'interdit jurisprudence dafa am si yu quoi. Ah, interprétation yooyu mais. xam nga bon sens ak li li nga xam ne moo jaadu mooy yoon. Hmm. waru sax may un un leader mu toog di. parce que le ce que l'on peut ce que l'on peut comprendre jamono bi mooy derrière on dit euh, ku wax rek ñu ne la. ñu ne la kii est-ce que ah, kon kon loolu day wane que ne moom xelam mu ngi si loolu. voilà parce que du ma ko ragal. ah donc <laughs> du ne ma ma si pouvoir wala mais président si boppam. Uh-huh. démarche am ak doxalinam si ni mu mujjee wàcce ya

mais duñ ne mais il peut pas prendre ce risque Macky c'est un citoyen il est né après les indépendances il peut pas se permettre aujourd'hui mhm. en principe il peut pas se permettre aujourd'hui jekki rek parce que on sait que l'état c'est la continuité même si parce que même même même mandats mhm. c'est fort probable que nga un fi quand on se réfère parfois on se réfère aux pays développés la mm. France les États-Unis en Chine mm. mais il lo plus de deux mandats depuis parce que c'est pas, démocratie, pas moi qui réalise, l'État du Sénégal. l'État, c'est la continuité, la continuité. Les, les, les, hommes passent, les institutions restent. Nous devons respecter l'état institutions. Est-ce que, est-ce que ce n'est pas plus judicieux nous régler la question dans la Constitution que nous fixer un mandat pour tout Sénégalais qui est... bien réglé, pourquoi est-ce que derrière également non, ça on va, parle de jurisprudence sur laquelle on peut se parler di indi ay jurisprudence sax yoy mais deux mandats successifs ban tuba benen ban mo ci xamati non xam nga li ñuy wax. ñii amna bi naa bii bu cinq ans la esprit et la bi bu 7 ans souvent voilà donc moy li ñuy wax l'interprétation. et puis mom mom moom président sax mom ci waxam. atena bu yag neena man parena ci sama deux mandats. loolu loolu la waxon wax nako ko. mais loolu la waxon limu wax nak kilifa li nga wax dafa wara deug parce que ñu ngi koy. mais il a repris son père putatif il n'osera pas sérieusement parce que souci dans tout ça hmm. dans cette euh, cette politique il n'est plus normal

un deuxième parce que dañ dan wax naa Wade c'est la seule constance am ñu ko duggal ci erreur tuxi doona bi ke indil 23 trois juin kon Macky warul teguwaat ci même chemin boobu il faut qu'il mom ñi ko jigéen dañ ko wara wax ne un second wala deux seconds war na am te dafa am amna ñi nekk ci ginnam am ambition nañ leen bay ñu ki alors euh, duñu poussat euh, tout ñëwaat euh, risque ndaxte gis nañu né bi donc di il ay ay euh, euh, ban alternative nga au-delà donc des des politiques yéen les les les mouvements citoyens ban alternative a a trouver pour que jamais ñu doon dem <coughs> élection locale parce que euh, c'est que est alors est-ce y a pour relever ces défis politiques donc de contre carré euh, ñoom chemin yi ñu di beneen moom souvent loolu laay wax xam nga man mouvement citoyen civique laa wax mouvement bëgg tëngeej dañuy liggéey ci citoyenneté tënk modèle sénégalais civique yooyu yëpp dafa doon yoo xam ne mu ngi commencé yàqu wala manqué ci réew buñ naa jikko yi yàqu na gëmatu leen politiciens yi gëm non politiciens yi man je me dis que ne je politicien là parce que la politique c'est l'art de de gérer la. lii ça en fait partie. mais image péjorative bi ñu def si politiciens yi suñu ñi ñu jiitu ñoo ko def man boo waxee loolu sax am na si ce qu'ils appellent entre guillemets la politique politique politicienne. baaxul mhm. léegi il faut faire la politique autrement. Mhm. moo tax man ma ne damay jëlal sama bopp sama yoon. ak mhm. ñi ma andal ak ñi may yaakaar ne ñoom war nañ ma mën a jàppale. ñu awale si suñu yoon parce que ñun ñi ngi wax naa mouvement yi bari na mais du lu bon parce que gisuñu suñu ci parti politique suñu bopp ci yenn mouvement politique parce qu'il y a des mouvements politiques mais ñi ni askan comme ni nga ko waxee sànq la gestion municipale la gestion des communes askan wi ñoko wara gérer sen bopp ñun fofu lañuy dem mouvement yi dañuy wacc ci terrain bi jël gestion bi ànd askan liggéey ko mouvement yi bari nañ tëngeeg bien avant si élection locale yi il y avait des mouvements à Rufisque citoyen mouvement citoyen bari na ñi demal sen bopp bari na mais amna instant bu mo xone quelques quelques leaders de mouvement si risque Ouest ma ne il est temps que ñu ñu def les grands ensemble face aux politiciens. c'est ça ah, parce que le souci xam nga moy lan may poser waat question mm-hmm. bobu moy tay yi ni gis nañu né <clears throat> à côté donc ah, excusez-nous des des mouvements yi nga xamné ne ñoo di les mouvements de soutien. Mm-hmm. derrière souvent dañuy dem xëcc ji. les mouvements citoyens man greffé len di seen

comme par exemple exemple ma doon euh, si élection 2014 locale yi jusqu'au ouest j'ai mon ami et frère euh, Demba Oui. Euh, Momodou Samba l'ami de Souleymane Ndoye entre guillemets ah, Momodou Samba Xamna li tax Diop waaw <laughs> ñoom ñëpp ngi leen di talalat, loxo ñew na fi nga tok waaw Demba Talalat. Hmm. parce que Demba sama ami d'enfance la sama goro la très bien mais dañuy xuloo rek <laughs> dama leen di talalat, loxo gis nga Rufisque bu ñu bëggee jël Rufisque ville. Mm. parce que suñu ambition la ñoom bu fekkee ñu ambition boobu. Mm. man am naa ko. d'accord ak ñi ma àndal ak ñi ma yaakaar ne dans les grands ensembles ñun dinañ jël tëngeej indi une autre gestion. dama loxo profité si occasion bi nañu toog waxtaan. il est temps yàgg naa leen ko wax mais loolu amagul mais xam naa ne pour ñu liggéey Rufisque Ouest. Mm. dem mënul dem pap à part moo dem à part Mourou Samb mënul dem keneen nax keneen mënul dem. bu fekkee ñun li ñuy dox amul parti bu ñu jox directive wala kenn ku nekk suñu ginnaaw di ñu doxaloo te bu ñu gëmee li ñu gëm dinañ def euh, euh, une genre coalition coalition d'accord boo xam ne dëgg moo ñuy boole te mën na leen yóbbu ci ay ay local pour ngeen mën a récupérer donc l'institution municipale non dañ ko war a dañ koy jëli ji incha dañ koy jëli ji pas da ngeen a ngeen koy dañ koy jëli ji lan nga ko teg bon ñun foofu lañ juddoo fa lañ màggee xam nga réalité yi

dem ci yalla si yalla que yalla yalla ku mel ni ku mel ni Mamadou Sy c'est le même combat à l'Est. waaw Mamadou Sy j'apprécie beaucoup ce qu'il fait à l'Est j'apprécie beaucoup et beaucoup d'autres jeunes à Rufisque. mais mais mais nguur ni mu nexé tay Assane hein ñu melni ay gorgui ak ay Mamadou Sy ay Demba Seck ay euh, euh Samb ñom ñep tay ngour ni mu euh bon je n'ai rien contre Daouda Niang c'est vrai que c'est c'est euh, c'est un ancien hein donc euh, doyen là mais est-ce que tey jii nii vous pensez que les politiques vous vous baliser le chemin da ngeen di ñëw rek yomb est-ce qu'ils ne vont pas. non du dans tout dans <laughs> tout combat dara yomb civil. non parce que c'est que j'ai l'impression que derrière si vous pensez que parce que. ils ont fait ils ont fait du temps rek ñoom dañu war dem est-ce que. Il y a pas d'autres jeunes yoo xam ne derrière ñoo nekk seen gannaaw. dafa laaj liggéey quoi ils sont en train de pousser pour éviter. dafa laaj liggéey dafa laaj liggéey. dafa laaj liggéey liggéey bi nag mënoo ko def sans pour autant. askan wi xam nga bëgg da ngay dem fekkee askan wi li ñu bëgg nga ànd ak wax li nga bëgg il a il a compris sa sama sama question parce que loolu laa bëggoon attirer cette attention. bu ma yaakaaree que sama mu. voilà c'est pas un fauteuil doré voilà parce que parce que généralement. parce que man mandat ñu wax. Mbaye jàng ak Mbaye jàng. trois ëpp na deux mandats. trois trois mandats trois mandats 2009 léegi voilà trois mandats. et que derrière également ma et cetera je bon je fais pas son procès.

Mais est-ce qu'ils ont résolu le problème du chômage, de l'emploi Est-ce qu'ils résolu... est qu l'ont est Ils n'ont rien résolu. Non, ah, il y a rien résolu. La, la santé, clinique, officine privée. Le public n'a rien fait. Le public, d'ara. Éducation, tu as des compétences transférées. Santé, éducation, environnement, social, agriculture, pêche. Pêche, vous a des foo tourné nga am kii tudde mbërët wala. waaw ñu def ay organise yu jaar yoon. waaw yàqu na. te jën amatul ci tefes yi ñu am euh, ndeppe. Mhm. ah bi fa newoon loolu yëpp dafa doon am géej moom. jën li bëgg am amuur dem nappi ñëw nappi ñëw pes bi mu ngi dee tënk. bu ça ça agriculture dafay amati. Mm, mm. ah parce que on a plus d'espace. Non ah, nos meilleures portions le lopin de terre il y a ko mm. on pouvait laisser des espaces. sur le plan sportif à part ça, le y qui l'autre tribune. waaw waaw l'entrepreneur euh, l'exécutant l'exécutant le maître d'ouvrage mais ah, c'est vrai il y a une sorte de passivité il y en a même qui m'ont attaqué c'est vrai qu'il y a un mouvement ah, le collectif. ils n'ont pas compris combat on a l'impression aujourd'hui y tout espace pour jouer que voilà non waruñu am ay ambition limitée parce que collectif bi bi ñuy ne dañuy dem bale ji eh, avant inauguration ouverture je leur ai dit c'est pas le votre rôle l'entrepreneur def un ouvrage s'il c'est à lui de nettoyer ça moom la ñu fay c'est pas collectif ñoo war a nettoyer yow nan la ñu la joxe nga liggéey nga war ko réceptionner avec ki la ko jox ouvrage bi pour la renaissance pour la réhabilitation de l'ESAT na nettoyer ñooy dindi mbalit mais gravaay ne ko intention de bien faire wala yàkkam waaw li nga wax rek dañu yàkkamti woon parce que toog nañ ne sept ans sept ans yu jéewul waaw mais terewul sept ans terewul la la preuve après derrière tu vois donc nawetaan malgré tout dafa ñu ko deux matchs tribune tribune commencé affaissé wu di menacer heureusement sax indi fi catastrophe et puis je leur ai dit waxtaan ni da ngay am ambition wax naa leen que ne stade bi ñu koy defar réhabilitation la ñu wax mais il fallait profiter de la réhabilitation ñu defal ñu un stade omnisport. Tëngéej la sport mine Lat Dior reçoit les les parce que parce que Tëngéej. l'équipe nationale waaw parce que waruñu woon sax ñu bàyyi ñuy jéggi Tëngéej mais stade Ngalandou Diouf inauguration bi ko Abdou Diouf di def en quatre vingt et un ou quatre vingt na mais sport la y avait un terrain d'handball de basket. une piste ah, mais on avait les meilleurs athlètes. Euh, les euh, meilleurs handball les meilleurs volleyball de même presse autorité un projet la suñu suñu politiciens politiciens hier, mouvement civil wax les leaders d'opinion yi nekk tegee ñooy yàkkamti woon rek <laughs> mais waroon nañ def ndank ñu am lu baax ba paré sax prétendre à un deuxième stade à Rufisque. pourquoi pas. pourquoi pas il faut être ambitieux dans la vie. ba paré xam li nga bëgg. Rufisque de le temps que ñuy def foofu yëpp. ay ay dëkkuwaay man bu may dem c'est vrai waroon nañ réserver côté Allemagne. Eh bizarrement seetlu loo man gisuma à Rufisque 2 nga na xamné ne na permettre de l'oxygène, une bonne oxygénation mm -hmm. du donc euh, la vieille Rufisque. Mhm. Malheureusement, on a l'impression que euh, bayuñu fa fenn foo xam ne dina doon un dangereux dangereux démographique expansion démographique xam nga ñun lu qui lu ñu tabax ay kër rek lañ espace vert amul que pour hein? mu am que édifice public la dernière fois et que édifice public yi du bâtiment y a l'impression Il y a l'impression que politique d'urbanisme ak euh, amul amul ci Sénégal amul si Tëngéej quoi. au-delà de l'aspect euh, euh, euh, urbanisme il y a d'abord li nga doon wax moy affaire wu donc insalubrité. insalubrité comme également affaire assainissement. assainissement foofu mais li ci ko moy la voirie à Rufisque. la voirie mom yag na. gis nga talibi euh, Maurice Gueye bi. waaw mu ngi def effectué wu. mu ngi don ay ay ay poul di dem. lu tax indi foofu tamit état bi am c'est pas de responsabilité parce que Rufisque Rufisque moy entrée au capitale bon te ba léegi bu jëkkoon waaw ba léegi ah non damay ñëw si voir bi quoi utal nañ leen mais mais camion camion malien fi la ñuy aw c'est vrai malgré contournement bi fi la ñuy aw te loolu pesage la mhm. je ne suis pas expert en matière de partir de Bargny à partir de Bargny voilà yëpp yàqu na da ngay daw di daal fa dafa tuuti voilà il fallait prévoir la euh, te am na les études yi nga xam ne les am na bah parce que Ageroute déjà andi na fi loolu. nee nañu prévoir nañu le projet yoo xam. ñew ci ñëw si insalubrité bi assainissement bi loolu c'est le mal Rufisque quoi ça me fait mal boo gisee sa mouvement tout ça fofu la gën a kii parce que bu ma nee citoyen. y a une sorte d'écœurement. ma mais mais man je suis dans une entreprise boo xam ne damay dem ci Sénégal je ne dirais pas que Rufus est la ville la plus sale mais c'est l'une des villes les plus sales. te même certains collègues loolu lañ may tooñu quoi booy sa dëkk bi yow da ngay sonn rek mënoo ko defar mën ko defar man je l'ai dit ne. mais a pas reculer lu ñu mënul defar amul ce combat citoyen ce combat également syndical. il faut kon combat citoyen bee service bi parce que challenge amoon na fan yi avec l' avènement de. waaw waaw waaw ministre Fofana. bi waaw waaw clean up jeexul. Mm, jeex wala tegul ñaata <laughs> millions lañ si yàq. man j'ai participé au challenge bu waa bu bees. Mm. jàppale naa si participer naa mais dafa doon projet yoo xam ne. c'est ça c'est pas de l'épiphénomène la quoi épiphénomène malheureusement juste voilà la. c'est folklore épiphénomène la parce que lu mu doon bu doon bu ñu toogoon xalaat si ni ñu lutter si insalubrité bi ak occupation anarchique bi. une gestion dans la durée. liggéey la xalaat la ñu ne lii la projet la lii moo koy financé continuité bi lii la évaluation bi lii la suivi bi lii la. mais on n'a pas fait ça. On a, on a amené une expérience. On a, il y, a même des études qui ont été faites. L'encourage structural pour nous dire que c'est un problème. Il faut parce, que, parce que rencontre bénéfique de Forum Forum les assises de On a l'impression que comme nous avons Forum au Sénégal, c'est le, le mal sénégalais. C'est lié on, à peut, un on peut réfléchir. C'est lié à un système ou c'est lié à quoi exactement Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. les gens ont de la volonté, de l'innovation on a trois minutes pour terminer. Les gens ont de la volonté, ils ont également donc des ambitions, mais malheureusement derrière, euh, bu ñu fait donc euh, ay études préparées ou natt dans 10 ans 25 ans des euh, des projections dans l'avenir finalement après on se rétracte. non le mal sénégalais là. Et tënkee li Et comment est-ce que nous avons développé développé quoi des des réunions, colloque tout ce que <laughs> on peut penser comme organisation Créer de réflexion document mais le suivi l'évaluation l'exécution il y a des problèmes il y a, l'anecdote qui dit ben ben euh, Ivoirien ben Ivoirien demandait en Sénégalais dans votre pays là il y a beaucoup beaucoup de, séminaires ah pourquoi est-ce que vous n'allez pas arrêter des séminaires et euh, être pratique euh, Non, on va on va faire un séminaire pour y réfléchir, vous que encore faire de la perpétualité parce que am na foo xam fi ñu toll il faut être dans ñu wàcc si terrain bi di liggéey quoi bàyyi wax ji. arñu mi arñu bi nga am nga am au niveau de ton syndicat. waaw mi la laa am délégué la boo gisee sax parfois dinañ dama booy il parle trop il a il a trop de casquette mais dama am amouru xeexal nit ñi quoi parce que syndicalisme mooy défendre les intérêts moraux et qui du, du travailleur. Physique et moraux. Ouais. Mais Sénégal, travail, Sénégal, c'est pour faire un travail, il y a plein de gens pressé sont... ba ñu bon je expose là laa mais Après, na yoo Nous, ne ñun ñoo siy gën a que le directeur d'exploitation ou le directeur bi nga xam ne domaine là. parce que vous êtes à cheval entre le travailleur et le. xam nañ quoi ñun xam nañ travailleurs yi yàlla la daal syndicalisme te euh, ku mel nem si yàlla si maja maja mm-hmm. boobu ndaw laa quoi mm-hmm. moom laa daan si mën a way j'ai comprendre ñi lu ñuy def bi mu kii day défendre travailleurs yi pas il m'a mu ñëw poste ñoo fa si syndicalisme mooy nuyu sama secretaire général Saliou Faye ak ñoom Cheikh Mbacké ak ñeneen ak ñeneen jàngal ma teg ma si yoon ma affilié suñu syndicat affilié ak si madame Bakhaw Diong CNTS FC. authentique d'accord mais muy liggéey ak fay bi nek waaw voilà ma <laughs> bokk si communication dynamique hein. waaw. sacerdoce la quoi. monde du travail bi il faut que des gens. sénégalisme mu ngi mu ngi mu ngi dundoo au Sénégal parce que est-ce que également. mais mais les ñu étiqueté dañu étiqueté comme les politiciens quoi. même à la poste amna na ay temps xawoon nañ mu c'était secrétaire général dama ñëw il faut ñu def d'une alternance générationnelle mais il faut faire le Sénégal autrement parce que nous, sommes ñu tuddee woon seen que vous êtes là pour régler vos cas quoi. alors euh, un peu en parallèle euh, tey affaire euh, démb def ngeen assemblée générale donc au niveau des cadres mhm. que la demande moi surtout li nga xam ne jëm recrutement également on a l'impression que vous êtes acculé parce que tu ay imoni yi nga xam ne yëpp ñëw place greffer ko en fait euh, gruger. liggéey euh, suñu suñu domaine de compétence suñu domaine réservé c'est ça suñu liggéey. et monde bi moo demee non nous sommes nous vivons la la globalisation ak les TIC ku nekk même yéen fi ngeen nekk ni maa ngi leen si remercier parce que da ngeen ñëw indi lu dox si euh, paysage médiatique gu Tëngéej te lu baax la. donc mm. bi muy demal ñu ne dina yegg si fii. ba fii incha allah. Mm. il faut innover. Mhm. dañu toll si monde boo xam ne boo innové wul da ngay dem nit ñi dañuy dem dañ lay romb dañuy gay gaaw moo tax poste suñu domaine traditionnel mooy le courrier ba léegi am na mais courrier d' entreprise moo ëpp. classique bi amatul tey man ma am na le timbre am na ba léegi. Mhm. c' mais pour des papiers transport des papiers civil mu ngi wàññeeku mais les colis progressent les colis li tax mu progressé le e-commerce. d'

Nous suñu conférence ah, on a réfléchi que il faut même bu partenariat on peut gagner deux fois plus de partenariat. d'accord nous sommes mobile banking ah, parce que make-up n'est-ce pas. non make-up c'est sur le plan financier. Le mobile banking on MVO il faut ñu opérateur pour nous, comme euh, euh, Free mobile d'accord promobile bu Mbakiwu xam nga firi moo koy ñem am ndax moom. d'accord ñun on a fait ñu ngi si yooyu quoi. mais il faut qu'on innove. alors euh, on est à terme donc de de cette émission looy tàggatoo. ak euh, ce mouvement say ambition. waa tàggatoo bi mooy maa ngi lancé du lancé appel sax maa ngi wan waa Tëngéej ne mouvement bëgg Tëngéej parce que ñëpp war bëgg sa gox ku nekk da nga war a bëgg sa gox li tax ñu ne bëgg Tëngéej parce que fi lañ juddoo fi lañ xam fi lañ màggee ça fait mal après un constat ñu gis dëkk bi nu mel ba amul ben progression <laughs> li li tam benn côté doon wax rien n'a changé autour de moi parce que mu ngi nekk à l'extérieur quoi mais def fa plus de 30 ans bi ñu après bac la fa dem ñu ne seen dëkk dara changé c'est la même route c'est les mêmes bâtiments. ku yeewoon mag ñi on magne? yeewoon mag ñi dinañ xam kër dem loolu moo ñu salte bi salte bi il faut ñu jëlee ko wañi ko fi assainissement toujours les mêmes problèmes té lool yëpp éducation la

ñun si ñun lay ñëwaat te ñun ñoo ko fiy def mais ne pas salir lu baax la di nettoyer cleaner baax yëpp yëpp ak yëpp ne pas salir ne pas yëpp ay ay ay ay kii la yoo xam ne comportement yoo xam ne mm. ñun dañ ko war a def inculquer si nit ñi à travers dem dem si école yi te seen mouvement yi loolu la ko yëkkati mm, loolu moo ñu yëkkati ba pare ñu xamal nit ñi ne ne nit mu si boppam mooy setal boppam setal goxam d'accord bala gërëm di la sant ci uh, wuyusi bi nga ñu wuyusu tay ji ni ci uh, jakarlo politique gor gi uh, ana Boy wala yassine Boy moo doonoon suñu invité mom mi di jiite donc mouvement citoyen bi nga xamné mom mo di bëgg suñu gan Moussa Pouy mo nekkon ci waxukaay bi Assane Diouf fété won ci xarala gi rafetlu sen and ak radio FM dimanche lay donat benen émission jakarlo politique ak benen gan ñu leen di ñaanal ngeen yennu dimanche que estavam